Acacia nilotica bi di nep-nep ma ngi lay wax nak amna côté batin waaw fi may ñëwé tuuti ndax dem bëgg li nekk li njëriñu garab rek suñ ci tolo ma wax la ko mais ci walu batin nep-nep gis nga bo jëlé dom bi kem bi ak euh, dombi bi nga dëbb ko wala nga jël ci khasmi khasmi mom amna tey loo ci bindal soxna bu góor ndax damay bañ a tëtt ci ñu jigéen ñi rek nga bindal ko sa soxna fexe mu sangu ci nga ñaan si comme ni mu amee woon ci suur itam lu jigéen ñu mën a defal jigéen jëkkëram du gis ku dul moom non seulement dina ko dimbali parce que dafay tax jigéen am borom këram am neneen nu ko gën a gisee nu bokkut ak nu mu ko waaye bu sëkkatee nag dafay tax nit ki bu fekkee ne raxas na ci kanamam nga baal ma ci wax ji mm-hmm. day jàngale rek raxas na ci kanamam dugg ci salle de raxas kanamam ci secret woowee waaye nag du nekk ay turu yàlla secret la lu ñuy daxañ la talsam buñ koy wax mooy lu ñu mooñaale xam nga dugub mooy cere mooy sunguf waaye pepp ma boo ko gisee doona mooy cere talsam itam ab secret la boo xam ne mën nañ ko jëfandikoo ci yooyee bu ko jigéen ji raxasee kanamam jaxasoog borom këram dañuy jëkkër ji day defa ne benn jigéen moo am ci àdduna muy muy muy muy muy soxnaam ci fan yëpp waaye nag am na yeneen yu muy jur yoo xam ni moo tax nag koo ko defal na ragal yàlla ndax tey day toll foo xam ni sa diggante digganteeg sa jëkkër dafa loo bëgg rek ci moom dalay dalay yomb mais nag lu jar a def attention la waaye itam góor goo xam ne sa soxna dafa war a ñëw wala da bëgg mu déggal la topp la am na mën naa ko wax sax inaa anzalnaahu bi ci xat mi lalli ko bind ko def ko ci ndox mu sangoo ko boo ko yóbbu woon ba àll kaañ dana la topp dana la sëyal dana la déggal dana dana la murit dama bëgg équilibré ah boo ah, li mën naa bari